asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo del si ànd ak yéen ak groupe Assalaamy FM ak groupe Assalaamy TV yépp di ñaanal Serigne Touba Cheikh mun Mountakha yàlla na ko fi suñ borom gën a yàggal te ak dolli ak wéram waaye di ñaanal mbooleem njabootu sëriñ tubaa gépp di jaajëfal ak cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir Mbacke ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ci taxawaayu liggéeyu màggalu Touba mbokk yi nag ma ñëw ànd ak groupe Assalaamy FM bépp 99 point 0 waaye ànd ak groupe Assalaamy TV bépp ngir wax jërëjëf wala ngir massawu. ak ndokkeel service d'ordre bu Sénégal ci seen taxawaay ci màggalu Touba cante gi dama koy tàmbalee ci président de la république ndax moo ko digle jaar ci premier ministre am ñoom ñaar ñëpp màggal si nan wàcc ci ministre de l'intérieur bi nga xam ne ñëw ne fi ay yoon jaar nag ci gouverneur de la région de Diourbel Cheikh Ibrahima Fall wàcc ci préfet bu Mbacké ñëw ci sous préfet bu Ndaam jàll nag ci commissaire Jigane seen bi nga xam ne moo yor commissariat spécial bu Touba ànd ak capitaine Ndour bi nga xam ne moo yor escadron bi mbokk yi taxawaayu takk der ci màggalu Touba amul kuy màggal si téyegoo seen taxawaay bu rafet ci tëli bi ci jumaa ji ci kër yi ak ci lépp lu mën a doon mën naa wax ne am nañ weer wala boog weer wu manqué tuuti woo xam ne noppaloo guñ ko mën naa sax na weer benn panu safar ba bisub tey jii ci àjjuma ji noppaloo guñ màggalu Tuubaa nag yàgg naa am ñu yàgg fee indi ay soldaar ay commissaire yàgg fee jaar waaye commissaire jigaan seen man en tant que Fallou Galass Syll ànd ak sama rajo ak sama site internet ñun ñoo ngi yëkkati suñu kàddu yi cant di ko jëme ci yow di ko teg sa loxo pour mu jàll ci fépp fu mu war a jàll ci seen taxawaay bu rafet bii ci màggal gi bi muy taw yéen a ngi ci kaw tali bi bi muy naaj yéen a ngi ci kaw tali bi am ngeen ni gan talu leen ko am ngeen ngeenum njaboot tëlu leen ko ngir lan sécurité doomu aadama yi ak jàmmi waa réew mi ak jàmm màggal gi jaar fa mu war a jaar ku def la nga war a def nag sëñ laa Lahad noonu woon ku liggéeyal Serigne Touba ku mën a doon murit yee la war a fay te ñun jàpp nañ ne liggéeyal ngeen Serigne Touba te kenn lan ci murit yi kon bu ñu amul seenu payit mën a war a yëkkati suñu kàddu na leen jërë ngeen jëf vraiment naaj wi tàng na vraiment taw bi bari na vraiment coono yi son toggoo ngeen ko ce mu néew leen di jàppale ndax kenn ku nekk ak bëggam rek la xam ak sañ-sañam lay doxe waaye ngeen ànd ko akub dal ànd ko akub yar ànd ko ak mën a laami soo di bàggante ay kilomètres di ko dox fu embouteillage bi xatee kenn waaxu kenn du ko encouragé mooy doxal boppam rek xam ne moo ko war a régler mu dem régler di ko dellusiwaat ci place bi nit ñi moom fexe ba am jàmm yéen ngeen nekk ci ab coono kon nag maa ngi yëkkati sama kàddu ak kàddu mbooleem kuy yëngutu ci Assalaamy FM ak Assalaamy TV di wax commissaire Diegane Sène ak capitaine Ndour kàddu jii ma leen di sant jàll na ba ci seen kilifa yépp sëriñ tubaa daal waxoon na ne rabbu sama wal ardi rabbul xarsi lakk saraftu jërëjëf wa merci wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.